قلبي وقال في بالوجه المصطفى jërë jëf mbokk yi ñuy bàyyi xel fu ngeen mën di nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ñu ngi leen di wax ne dal leen ak jàmm fii ci résidence Khadim Rasoul ci xibaar yi nga xam ne moom lañ jagleel journée xasida bi nga xam ne Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké Bachir xalif général des Mourides moom la santaane nit ki 11 août 2021 ñu war ko amal fii ci Touba ak fépp ci biir réew mi ak ca bitim réew mbokk yi xibaar yi dañ koy dooree ak ndigal gi nga xam ne wàcc na bi mu wàccee taalibe yi mu yi di yéene koo jëfee loole moom moo tax mbooleem kuréel yi ak daara yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew fas ànd liggéey boobu def ko mu doon benn ñu taxawal ay commission yoo xamante ni bés yàlla sàkk ñu ngi amali tënk ngir fexe li nga xam ne moom moo di ndigal sëriñ bi jëm ci journée xaside boobu noo xam ne noonu lañ koy tëralee ba amalee ko ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi bëggee mbokk yi ndigalu bésu xasida gi dafa àndaat ak beneen ndigal loo xam ne murid yi fas yéene nañ koo jëfee ndigal loolu moom moo di lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllum cet gi desul euh, desaluñ ko ginnaaw sëriñ bi nag santaane jamono bi ñu nekk euh, ndax am na loo xam ne laaj na ko muy takk masque yi ak lépp loo xam ne aajow na ci loolee nag am na soññe yoo xamante ni sëriñ Youssou def na ko ci ci teewaayu sëriñ Amsatou Mbacké moom sëriñ soñ bu ci matuwaay yi nga xam ne mboolem taalibe yi murid di war nañ koo jël bu ñu ñëwee ngir sàmmonteeg cet gi ak jamono bi nga xamante ni ci lañ nekk nii loole lépp sëriñ Youssou Diop indi na ciy leeral ñu ànd teewlu ko. ñu bàyyi xel ne dañoo nekk waa àdduna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 ci fànn googu la ñuy des ba léegi ndax commission yi ñu ngi waajal bés bi moom moo tax am na délégation bu am solo boo xamante ni waa daara Hizbut Tarqiyyah ak waa ahlu xasida demoon nañ ci jumaay tubaa ji giseeg waa daayira mu xaddimatul xidma ñoom it ñu amal waxtaan wu am solo lépp rek jëm ci organisation bésub xasida bi ndax bëri na mbooloo moo xam ne daañu ñëw ci jumaa ji ndax ki nga xam ne sax moom moo di am sa Mbacke moom Serigne bu ci penk jumaa ji fa lay féetee fas yéene fa dundal bis bi loole moom moo tax fànn yooyu yëpp amal nañ ci waxtaan yu am solo waaye nag délégation bi visité li nga xam ne moom moo di bërëb yi nekk ci jumaa ji fépp foo xam ne war nañ fa def ay bâche ak ay installation ngir waajal bés boobule. bisub xasida bi bés la boo xamante ni dañ koy yaatal ndax yoonu murit yëpp la moom moo tax fi mu toll nii daayira Mawahibou Nafih bi nga xam ne moom moo ëmb jàngkat yi xasida yi ñoom it ñu ngi waajal bés bi bu baax baax ba tax na def nañu euh, woote soññee mboolem ñi nga xam ne seeni wëllëre lañ seeni soppe lañ waaye tamit soññaat seen mbokki jàngkat yi ci bés boobu nga xam ne ñoom it fës ñu nañ ci am taxawaay bu am solo kon ñu ànd teewlu kàddu yi Serigne Khadim Gueye. ñuy woote nag ci turu jàngkat yi xaside yëpp yi nga xam ni euh, ñoo aju ci daayira Mawaahibu Naafi ci turu sëñ fàllu Ndiaye ak mbooleem jàngkat yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi yëpp mboolem région yëpp. ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii Touba itam ci taxsimu Seexul Xadim ak mboolem daayiru ahlu xasida ak Touba xasida social ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ci jataay bi jataay bi itam ñu ngi koy amale ci jullikaayu it bi fii ci kanamu jumaa yi muy fi ñu jullee it foofu la ñuy xëy bu sept wala huit heures gën gaa naaj ñu bokk fa daje dundal bis bi ni ko sëriñ bi diglee ba takkusaan noo ngi toog nag ak mboolem jëwriñ yi nga xam ne ñoom la ñu àndal di ci woote ci seen tur ñoom ñëpp di sàkku itam ñëpp maase teewandoo fa te kuy ñëw ngi indaale pas-pas bu dër ak yitte ju mat sëkk ngir sëriñ bi lim nu sàkkul ci boroomam nu mën cee jot. mu nekkoon kàddu yi sëriñ Xaadim gi ci ni nga xam ne noonu lañu fas yéene ànd ak a kuréel yi bésub xasida boobal mbokk yi lii lañ leen doon tey ci xibaar yi nga xam ne moom lañ jagleel wàccaayu bésub xasida bi nga xam ne sëriñ bi moom la santaane war a doon àllarba fukki fan ak benn ci août atum 2021 ñu leen santaar bu baax a baax di leen gërëm ci teewlu gi dig leen daje incha allah ci yeneen xibaar yoo xam ne dana bàyyi ko fii ci Touba ci résidence Khadim Rasoul ñu ànd ak yéen ngeen bàyyi xel mesure barrière yi nga xam ne moom lañ santaane waaye ndigal li nga xam ne sëriñ bi joxe na ko ci takk masque ak sàmmonteeg cet gi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.